bismillaahi rahmaani rahiim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Sud FM seen rajo ci seen jataay mu tuddee Arrachidun ngeen koy am benn yoon ci weer wune dellu si na dinañ ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall arachidun di jàngale asahaba alkiram ridwanullahi taala alayhim ajmain waaye jàngalewul saxaaba yépp dafa am rekk lu leen boole ñeen ñépp daal di jël nag arachidun muy abou bakar omar ak ousmaan ak ali rachidun mbokk yi ñëwoon nañ ci tomb yu tàmbali woon liggéey euh, jataay bi waaw àndoon ci yéen ak lu tax ñu jël euh, émission bi tuddee ko rachidun ban ca noppee ñëwoon nañ ci tomb ba am solo mooy ngëneel yi nga xam ne moo nekk ci al umma al muhammadiya al ummatul muhammadiya mooy xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëwoon nañ ci ak yéen waaw euh, ñaarlu jataay bi ñu defoon ko ci euh, lenn ci baaxaayu saxaaba yi li yàlla def ci ñoom waaw tey ñu war a ñëw ci euh, beneen tomb ba am solo mooy fadaailul ansaar fadaailul ansaar saaba yi ñaari groupe lañ benn groupe bi ñu ngi tudd al muhajirun benn groupe baa ngi tudd al ansaar la nga dégg sax ci Dakar ak yooyu quartier yu tudd lansaar waaw te it boo waxee al muhajirun wal ansaar saxal dem ci waaw sunu magum daara la sunu sëriñ alxaaji lemin Ñang ñu gën koo xam ci Lamine Ñang bu jidda yal na yàlla yokk ko wér kon saaba yi dafa am almuhaajiruun am al ansaar ñan ñooy almuhaajiruun mooy ña jógee màkk ànd ak yonent bi gàddaay ñëw almadina ñu ñooy almuhaajiruun képp koo xam ne jóge nga màkk ñëw madina yow lañ fi dee ñi gàddaay ñoom dañoo jóge màkk ñoo mujj na ñan ñooy al mooy ñi nga xam ne nag ñoom ba ñee jógee màkk ñëw ma ji na ñoom lañ fa fekk mbokk yi ñooñu li ñu def ci mbaax ni ñu mel ci mbaax su ñu fi jëloon benn émission tàmbali ko ren ba diwén du jeex mukk noonu nga xam ne suñu waxtaanu fajaru samedi rixlatun ila daaril axira àkkagul ba léegi te ña ngi ko tàmbali woon kera ba nu tàggee sëriñ mbàkke soxna loo kero lañ ko tàmbali woon ndax xamal nu ñëpp ne mbaax ndeke du fi taxa des kon saxaaba yaa ngoog al ansaar la ñu bëgg waxtaane tey waaye ma ne bu nu tàmbali woon di leen waxtaane ci niñ mel ak yañ def yépp danañu àgg ci diir bu yàgg te du àgg waaye daal ma ñëw indi ci benn tomb bi ma ci njëkk a tàmbalee mooy al ansaaru yuthiruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa yàllaa leen ko tagge loolu yàllaa leen ko tagge luy loolu mooy lansaar bi muhaajir bi añ moo ko gënal mu añ lansaar bi muhaajiroona bil muhaajir bil reer moo ko gënal mu reer lansaar bi muhaajir bi ndékki moo ko gënal mu ndékki lansaar bi muhaajir bi am fu mu dëkk moo ko gënal moom mu am fu mu dëkk loolooy laaye ji wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa moom la yàlla xam ci ñoom keroog ba sallallahu alayhi wa sallam wooxe leen ca jàkk ja ne ana muhaajiru ne ñoom ñëpp ñu def ne ñu def leen benn liste ana lansaar yi ña nga ne ñu def leen benn liste moo tax alayhi salaatu salaam ci ni mu doon jàngalee état état ba kenn du ca nekk te xamuñu la lu ñuy tuddee recensement te ñoom professeur Iba Der Thiam daan ko daan ca bokk mooy yonent bi xamoon na muhaajirun ni ñaata lañ xamoon na lansaar yi ñaata xamoon na jigéen ña ca muhaajirun ñaata lañ muhaajiraat ansaar yi xamoon na jigéen ña ñaata lañ ndeysaan xam na ñaata lañ gone gu judd ci muhaajirun yi xam na leen gone gu judd ci lansaar yi xam na leen lansaar bu am doom ju jigéen xam na leen muhaajir bu am doom ju jigéen xam na leen naka noonu doom yu góor moo tax xaala bi mu xamoon ay ak njabootam moo dugaloon kere bi ñuy bëgg a wori xel yépp dem ci mu dum koor ndax yonent bi aleyhi salaam ci état boobee état bu Medine daggoon na ko dagg yoo xam ne recensement yoo xam ne ku ci ne xam na la nga mën ak la nga tële kero ba mu leen walloo ci azaka mu dum koor walluwaat leen laahu akbar penc ma tàmbalee yëg bokkoo gii nga xam ne moom la kero ba mu woo ci jàkk ja di leen séexale dafa am kum sé kum séexaleeg morom ja mu def def ju waaw jëf ju rëy sunu borom ne diw mu ne ko labbayka mu ne ko yàgg diw yéen laa seexale waaw daal cay yem kooka daal di jàpp ci loxol kim ko seexale ndeysaan ñoo seen jooya ñoo seen jooya ba ca kër lansaar bi mu ne ko am naa ci banque bi su soixante millions mu ne ko waaw jëlal trente ma jël trente muy lox mu ne ko des na am naa ci ay terrain lu mat quatre jëlal deux ma jël deux kër gii mu naa mu ne ko trois cent mètres carrés la nañ na ko pàcc ci digg bi nga jël lii ma jël lii moog moom moog moom ba agsi ci soxna yi <laughs> allahu akbar ne ko am naa ñaari jeeg ñaari jeeg bu ñuy reer jëlal morso yàpp nga sànni ci kanam ki nga xemmeem ma yeewi ko bu iddaam jeexee nga jël allahu akbar yàlla ne lii lii lii lii saf na ma lool kii ni mu def lansaar bii lim def saf na yàlla lool waaw moo tax mu wax ci suratul xasri booy am aaya neuf allahu akbar jëf ju ñu saf na yàlla lool mbokk yi mooy partage partage mooy li ngay am nga di ko bokk ak say bokk xam naa nii ñu nangoo partage ci WhatsApp luñ jot partager ko luñ jot publier ca Facebook loolu day buñ ko doon partager suñuy am am doo séen ci pénc mi ku jaaxle waaye bu fekkee kenn ku ne lu mu am ma ngay kopp-koppal pour dunde ko moom dong laayu ji mën ngaa dund ba génn àdduna te doo ci bokk te saxaaba yi ku ci masaan dégg jenn laaya bala ngaa am jàmm dangaa def la laaya ja wax ñoom noonu lañ meloon lansaar yi nañ dem ci suratu alxashr aaya neuf sunu borom wax ci groupe yooyu yëpp mu ne lansaar yi lay wax wallazina tabawu daara wal iman dana seen jëf ju njëkk mooy propagandal yonent bi addaar propagandal ko al iman kere bañ yëgee ne alayhi salaatu salaam ma nga ca màkka ma nga ca màkka yónni ci ñoom benn xale bu ñuy wax musab ibnu umayr musab jàngal paa paaya ca dëkk ba paa te tabawu u daar tabawu u daar mooy ñu propagande ba seen kër yi kër goo ca dugg am ca ab jullit wala ay jullit góor ña jigéen ña loolu propagande boobu lañ defal diine ji mu saf yàlla lool gis nga sunu mag ñi boo ko dee seet koo ci taxool mbaa nga seeti ko mbaa nga nuy ji ko dalay defal te bawu daara luy loolu xaaj abdul aziz radiallahu taala anhu daf daan toog nii ba mu neex ko rek mu ne jeef kër Oustaz Ahmed Dame Ndiaye ci misaal xam nga tey su ñëwoon euh, fële ca kër Masaar daal di fay agsi waaw bis boobu soxna bu Ndiaye dana am gan goo xam ne mësu koo am bu ko defee mboolem ñu dëkk ca gox ba ñëw kër oustaz Ahmed Dame Ndiaye ñëw googu sëñ Abdou ñëw ci kër gi dafa am lu mu yokk ci kër gi am lu mu yokk ci njaboot gi am lu mu yokk ci oustaz Ahmed Dame Ndiaye te bu julli tisbaar jotee kat ànd ak yow dem ci jàkk ji julli ji dafa waxtaan wa mu jëmee ko ci oustaz Ahmed Dame mi mu seet si ni jëme ci bokk lim dégg ma koy liggéey ci diina ji yéen ay wax yoo xam ne bu ca daanee la bu jógee niveau bi Oustaz amee Dame Ndiaye tolloon ñëwum boobu def koy yokk loolu te baw daara mag ñi noonu lañ doon def soo ñëwee ci kër gi ñu tudde la boroom xam-xam ah allahu akbar boo ñëwee ci kër gi ñu tudde la boroom xam-xam la ngay nab na bi duñ ko xeeb déedéet waaw ndeysaan suñu waajur wa suñu sëriñ ba xaaj abdul aziz al amin kenn du fàtte moos waaw sunu digganteeg moom waaw duñu ko fàtte mukk waaw waaw <laughs> tubarkalla ndax boo ñëwee dana la wan ne li ngay nab na bi xeebu nu ko waaw xeebu nu ko waaw waaw loolu jullit yépp a ko war di defal seen moroomi jullit ndax yonent bi mu muhaajiroon yi lansaar ya leen ko defal te bawoo ut daara am na solo lool propagandal ko yemuñ ca wal imaan wal imaan ñu propagandal ko xol yi ba bu bu alayhi salaatu salaam accès lim fiy fekk bokkut ak buñ tëjoon xol yaa kër ya moo tax ñooñu nga xam ne ñoo ko fa jiitu euh, sunu mbokkum daara amiru jamaati Abdurahman docteur Ablaye Lam nee na kero bi alayhi salaatu salaam di ñëw ni ñu préparé feet gi ak xale yu góor ya niñ leen def ak fas yiñ tànn ci dëkk bi ñu war ko war koo gàttandu ji fële ca ji masjidu xubaa ànd ak moom dugg ca dëkk ba nee na manifestation boobu ak feet googu gëj naa am Madina keroog waaw waaw gëj naa am Madina keroog dëkk ba génn góor ña jigéen ña mag ña ndaw ña ñépp génn di ko séentu rek waaw di ko séentu booba téléphone amagut ba mu naan départ naa buñ séentoo ba ngoon gis ñu ko rek ñu ne kon suba ndax yonent bi du ñëw ci dëkk ba guddi mukk ko <laughs> sallallahu waaye naar ba yéeg ca kaw tàndarma di xool ba mu yàgg mu ne haa huwa rasulullah moom foofa la fàqe ca kaw garab ga rek ni dér ci suuf ti déewut damuwut <laughs> ti déewut damuwut ndax yàlla <laughs> bu damm woon feet gi day yàqu wala bu deewoon feet gi yàqu te yàlla bu bëggut yàq feet gi ndax yàlla sëriñ Cheikh nee na musta xam ku sérieux ni moom allahu akbar sëriñ Cheikh nee na yàlla musumaa xam ku ni moom waa ja xaba ci ko ci kaw tàndarma ga nañ suuf ket déewut damuwut foofut haahuwa rasulullah daan ne jër <laughs> allahu akbar ma ne keroog almadina attabawo daar wal iman ñu wan yonent bi ne ko dëkk bi moom ñoog yow la ba tax keroog lañ ko wayal talaxal tala al badru alayna min faniyatil wadaa wajaba shukru alayna nun waa madina wajaba shukru alayna maada lillahi daa daan ne ko nag ayyuhal mabuuthu fiina jita bil amril muta muta ne ko jita sharrafta al madina laa ilaha illallah jita sharrafta al madina marhaban yaa xayra da ndeysaan waaw boroom xam-xami léeg-la gis ku ca yokk nag aw bayit kee yokk aw bayit rek mu mu gën a yokk rek waaw sallallahu alayhi wa sallam waaye ndaw fiet gu rëy loolu muhaajir nañ ko def ak lansaar yi kañ lañ ko def min qablihim lu jiitu seen mbokk yi di jógee màkk di leen fekk si ak si rek fekk dëkk bi nooy nepp mu ne beneen beneen def def bi mooy yuhibbuuna man haajara ilayhim dañoo bëgg gan lansaar yi yàlla ne leen neex ci moom dañ mooy dañoo bëgg gan ah waaw waaw dañoo bëgg gan gan nga fu muy jóge màkk xam nga léegi sunu penc yi meeg sunu télévision télévision yi ñu ngi fexe ba nit bëggatul gan ak sunu xeeti dëkkin yi ndax ki lay tabaxal tabaxal la néeg saal toilette waañ bëggul nga am gan néeg saal toilette waañ ak kuur bu tuuti kooku bëggul nga am gan déedéet ki bëgg nga am gan day tabax ay néeg ay saal ay toilette ay cour kooku moo bëgg nga am gan wala kooko bëgg gan waaw tubarkalla waaw waaw keroog ba ñuy dem kër euh, maître ma dikkee waaw ndax bi ko sëñ muntaxaanee ba mu ko waxee kàddoom ya ci jeex njeextalu campagne bi kàddu yu rafet yooyu ku ko dégg ci nit sol saw dal dem ne commentaire la ko kàddu yi te ñibbi ci say war-war la bokk waaw <laughs> waaw teg ci ci teg waaye dal <laughs> bu ñu ñëwee ci kër gi nee nañ ko te ba woo daarawal imaan kër yii la la la la lislaam nii la ko bëgge mooy mu mel nii mel nii mel nii waaye benn néeg benn saal benn cour benn toilette mu ne a mën a ko loolu ni alxuraan di jàngale ëpp na loolu ndax yuhibbuna man haajara ilayhim waaw ak kër dañ koy waajal pour gan nit day bëgg gan mbokk yi nit day bëgg gan loolu ci baaxaayu saxaaba lansaar yi ci lañu bokk nit ko bëgg gan waaye soo seetloo ñun bu nit jógee ca kaw ga ñëw sa kër lu ngeen man di bokk du tee nga ko ne kaw-kaw nga di ko ko wax di ko jëf ak moom waaye loolu kenn du koy def ndax kaw-kaw ak taax-taax hmm? adduna ngi soppi kaw ga ay taax di soppi taax yi kaw ndax mbalit meeg xeeñaay beeg salte beeg ndox mu fuus meeg yooyu amul ca kaw ga daaru ci buggee da <laughs> sëñ waaw sëñ Fàllu daaru ci da amu ca mukk waaw waaw yuhibbuuna man haajara ilayhim muy seen ñaareelu jëf mu ne wala na fi sudurim xaaja nee na bi ñuy bëgg gan lu leen gan indil taxut ñu bëgg a gan retombé yi ñu amee ci gan ñi yitteelu leen li leen yitteel mooy am gan jaamu yàlla ca gan ga bégal sallallahu alayhi ca gan ga loolu lañ bëggoon ñoom waaye bëgguñu woon gan gu ñëw indi ay yëf kon bëggoo gan yëf yi gan gi indi nga bëgg mbokk yi sunu borom wax leen loolu tam wala na fi sudurim xaaja mimma uutu gan gi sërite bi muy indi taxul nga bëgg gan gi dangaa bëgg gan gi te ganu rasulullahi la waaw moo tax ci aj màkk nga dégg sunu borom di wax ne lu mu waaye defal ci sama gan yëg naa ko ba man tatawwaa xayran fa inna laa shakirun alim defal ci sama gan xam naa ko moo tax ujaaj yi dem màkk di jàpp ca gan yi alayhi salaatu salaam ya léeg-léeg nit buux fa nit loo xam ne bu ko xoolee rekk tiit waaw bu ko xoolee rekk tiit lay ndeysaan waaw waaw mu ngoog nee na walaw kaana bihim xasaasa mu ne xiif du leen te dalal gan wala boog wa yuthiruna ala anfusihim moo ci teg ngeen baal ma wa yuthiruna ala anfusihim mbokk yàllaa ngi lim baaxaayu lansaar yi waaw tabarkalla mooy tabawu daara muy benn aliimaan muy ñaar eh, yuhibbuna man haajara ilayhim dañoo bëgg gaan muy ñett wala yajidun fi sudurim xaajatan mimma utu muy ñent wa yuthiruna ala anfusihim muy juróom al ci xeeti jikko yi la bokk al ithaar mooy ku nangoo bokk gis nga jeeg jii sëy ci dëkk bi te bañ wujj laay ji mokkagul ci ñoom waaw laay ji mokkagul ci ñoom formation bi ki formation bi àgg ci moom yuhibbuna man ajara ilayhim day bëgg gan day bëgg gan waaye nit koo xam ne kii danga naan man lii ma moom man képp moom dong lu tax mooy laay jee moo ko gudd alxuraan moo amagul euh, tamakkun ci sa xol bi waaye boo ko amoon ku ñëw ngeen bokk li am walaw kaana bi yam xasaasa wa man yuuqa suxa nafsi fa ulaayika humul muflixuun ku fexe ba bëggee woo kenn gënatu la mbokk yi beneen bind nga noonu ci arrachidun tabarakallah bu ñu ko dégloo dégloo ko maanaam weeru jot dañ ci am benn incha allah bu ngeen ko seetloo beneen a ngi noonu tabarakallahu jëmoon ci asahaba alkiram ñu tudde woon lansaar eh, ak seen i ngëneel ak seen i baaxaay ak seen fi war yëkkatee jotaay bi ci kanam tuuti ñëwee laat ko ci li nga xam ne moo ci tege ak seen mbokk alxaaji sëriñ Mbàkke Sylla yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir di def suñuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu